waaw yéen mbokki jullit yëpp ñu ngi leen di nuyu mbokk yi fi teew yëpp ñu ngi leen di nuyu ci bés bii nga xam ne moom la tuddee siyaara alaaji Abdou euh, alaaji waaw muy bis boo xam ne bis bu ñu kontaan la ndax góor gi nga xam ne muy euh, sëñ Aliou Sakho dañ koo xam ci lu baree bare bare te li ñu xam ci moom yëpp mooy jaamu yàlla jaamu yàlla nañ ko bëggee sellal waaw ndax yàlla dafa ne ubudullaha muxlisina lahu diin na nangeen ma jaamu jaamu gu sell loolu ci la nekkoon jàpp tërixam bii nga xam ne mooy seen a Ahmed tiijaan toujours dañ ci daan waxtaan man ak moom loolu lañ xam ci moom ay nan toog marché di waxtaan ci tarix bi di waxtaan ci diina di waxtaan ci tarix bi li ma xam ci moom nag mooy sellal gi ma wax la ci diina ni mu ko sellalee ak ni mu ni mu toppatoo tarix bi ba sellal ko noonu la toppatoo liggéeyam dafa daan tukki di dem du bàyyi lamam ca xaalis bu demee moom lay jaay bu ñëwee denc ko ci dépôt bi day jaayee ba mu jeex mu delluwaat jëndiwaat amul kenn ku mu yoral benn dërëm ci marché Sandaga amul moo ma ko wax man tàkkusaan lañ julli mu ne ma fii yor lu mu fi kenn benn dërëm nit ñee ma yoreel kay yor lu fi kenn benn dërëm loolu ba mu ko waxee ak bi muy gaañu benn la waaw loolu nag sell gi mu doon sellal moo tax yàlla defal ko tawfiix boobu njabootam yi amul kenn koo xam ne mokkulul alxuraan fépp fu ñu place bu ñuy jàngi alxuraan yóbbu na fa njabootam ñu jàng alxuraan man man mii loolu ci moom laa ko royee waaw ba ma commencé am njaboot laa roy góor gi ci joxe ko ñu jàng alxuraan gis naa ne leer rek moo nekk ci góor gi ndëkk alxuraan lam doon liggéey lu leew loolu moo nekk ci alxuraan moo nekk ci doom yi yi mu jur ba lépp lu ñu leen xamal ñu xam ko mu taxaam yi dañoo foogoon sax dafa xam leneen lu ñu ko defal fekk nag déedéet leer gi ne ci góor gi mooy ball ci doom yi loolu mooy xam-xam bi nekk ci njaboot gi ak jub gi nekk ci njaboot gi ak euh, dem liggéey bi nekk ci njaboot gi loolu la leen miinal liggéey jàng ba tey jii ba mu fi bàyyeekoo ñoom taxawaaluñ kenn ci dundam mën naa wax ne boobu daanaka un mois moo des dañoo toog di waxtaan mu ne ma Chérif suma wóllëre nga sama liggéey bi de dama ko jox gune yi mun taxaa laa jox Saalum jidda Ousmane ma jox ko place bi ni yor met série bi su lëg su voyagé bu ñëwee beneen yoon mun taxaa dem bitik bii bu joxee weer dépense bu beneen weer ñëwee beneen bitik bi joxe dépense loolu moom ma ko wax maamu ñoo toog man nag li ma yore ma bokk ko samay bokk booba la jënd otom boobu su tàkkusaan jotee mu julli ba pare ñëw toog foofu di wir waaw lim am mu bokk ko kii bokkam xale yi li ñuy liggéey ñu taxawal ci kër gi ak njaboot gu sew gi fere yëpp xale yee ko doon def ñaari biti yee ko doon def te loolu moom moo leen ko yaree moo tax bi mu fi jógee ko mu taxal li mu wax ne ne ñoom dañoo toppante góor gi moo leen mooñee noonu benn jafe-jafe amul seen diggante ñoom ñëpp benn lañ loolu nag sellal gi mu doon sellal la ko yàlla mayee tawfiix boobu waaw yal na yàlla gudda yal na yàlla jéggal ko yàlla eh, xare ko ajana yal ko yàlla jéggal yàlla ko xaaral àjjana lépp lu mu di def su lu baax yal na dajeeg moom taalibe Alaaji Omar Ndaw la woon nag am na lu mu waxtaan ci Alaaji Omar Ndaw lam njëkk siyaare ji mu ne ñaari saakoy dugub la dafa bay am dugub magam ne ko da ñaari saako yi siyaare ji ko mu ne mu ne ah magam ne ko yoo xamoo fii ma la jëmee yoo la ki mi lay won xamuloo ko yóbbul ñaari saako yi mu ne mu dégg ndigal yóbbu saako yi mu ne si diggante ba mu bayee lam am pour tuddut ko sax waaye dama ne yóbbu naa juróom benn saako ci siyaara ba waaw pour won la la rek yokkute gi mu ci gisee mu ne noonu la ne ba mu jooy ko kër ña ñëw fii dakaar li mu doon jaay la tuuti la waaye dafa tonoon lool lu mu jaay am ci bénéfice muy gis ak yokkute ci su def muy defal sëriñam lépp lu mu defal sëriñam su ñëwee fii mu gis ak yokkute bu baax yokkute googu ci la ne ci la ba nekk ba sëñ Muntaxa bu ñëwee ci këram lay dal sedd nañ ni këram gii nii palaasu la boo xam ne palaasu li jaaba la ndax sëñ Muntaxa fi la daan dal te kat moom jàpp basi la fu fu mu dal mu ruus waaw ku ko yëg di mu naa amerig ba mu ñëwee fii néegam néeg ba Aliou la nekk ba mu ñëwee ñu tegal ko paan sotti de ci glace sotti ci ndox ba mu fees muy tànk di sotti yaram boobu yaramu tàng jër la ñaari xarmal la indiwaale xarmal yooyu la xoddoo làmbaayu benn bi waaw def fi war a def ba dem daaru kon nag góor gi li ñu mën daal mooy ñaanal ko yàlla xare ko aljana aljana di gën a kooye muy aliyin yal na yàlla dugal ko ci barke yonent bi sallallahu alayhi njaboot gi yëpp yàlla barkeel leen yal na yàlla barkeel njabootam yëpp maa saalika ala lay bi